dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Dramé gannaaw bu ñu santee yàlla suñu borom subhaanahu wa julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yéen a ngi fàttaliku woon keroog buñ doon taxaw ak yéen ci suñu waxtaan ya amak am ak yéen ngeen di ko wittalantek ñun fii ci waxtu wi ñu ngi taxawoon ci bunt bi nga xamante ne moom lañ doon waxtaanak yen mu doon bunt boo xamante ne yàlla buur bi tabaraka wa daa tere boppam tooñ waaye mu def ko mu doon lu xaram suñu diggante ba tax na mu ne ñu bu di tooñante tey bi iznillahi subhaanahu wa taala ñu war ci sëf toftal si beneen bunt bu bees waaye li jiitu ñuy dugg yen ci waxtaan wi di leen fàttali ne rekk yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam daa am lamun dénkaane jullit ba nga xamante ne yàlla dakaa xéewalal mu jëfandikoo la nga xamante ne mooy nelaw mooy lañ doon def waxtu su néew ci ginnaaw kon gannaaw bu ñu suñu borom subhaanahu wa taala baaxee ñu ba ñu taqale ko ak jëf jooju ñu daan jëf di nelaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lum ñu tegtal ne ñu noonu ngeen war a sante yàlla gannaaw bum leen defale la nga xamante ne moom ngeen nekkee woon waxtu su néew ci ginnaaw di an nawum ba tax na lañu suñu yonent bi sant foofu ne loolu la jullit bi war a def mooy gannaaw bu ko buur yàlla subhaanahu wa xéewalale mu am occasion bu bees mu yeewu ci nelawam la mu njëkk a war a def mooy dafa wara a sant buur yàlla tabaraka wa taala ne alhamdulillahi ladi axyaana baada ma amaatana wa ilayhi nushur la bi di tekki mooy yow jullit bi bula la yàlla wërsëgalee ba nga jóge ko ci nelaw boobu nga doon def la war mooy danga war a sant sa borom buur bi tabaraka wa ne ko mboolem xeetu cant yu kawe yi ñeel nañ la yow yàlla ndax yow yay buur bi nga xamante ne yaa may occasion ba ma dundaat gannaaw bi nga dogalee ci man dee bu ndaw te loolu mooy nelaw kon ma lay ñaan nga bàyyi ma fi ba keroog may tàqale kook dund bi te keroog bu ma tàqale kook dund bi nag du fenn fu may dem di si kenn ku ma war a dem fu dul fa yow yàlla moo tax nga déggee ci njeexantalu ñaan bi nga ne wa ilayhi nushur ci moom yàlla la ñuy dellu dellukaay boo xamante ne fa la di dem buñ fa demee dañuy yeew ci suñu nelaw boobu comme nelaw bu ndaw bañ daan def fii nii dañuy yeew dox dem ci suñu yitte yi waaye nelaw bu mag bi nga xamante ne mooy nelaw dëggantaan di dee saa yi mu dikkalee kenn ci nit ñi ba mu dem wuyu boroomam ci nelaw boobu kon nga déggee ci njeexantalu ñaan bi ci yàlla la dem ximbale ci yàlla lañuy ñuy yeewu jee ëllëg gannaaw bu ñu faatoo kon faatu dee da nelaw bu mag moo tax wolof naan diw sàngam nelaw na kañ lay ximbile ko kañ lay yeew ci nelaw boobu mu doon nelaw mooy keroog bés pénc bu demee dajeg boromam subhaanahu wa taala mbokk yi ba tax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegtal bii tegtal ne boo jëfandikoo xéwalu yàlla bam la xéwalal di nelaw kon boo yeewoo lan nga war a def mooy nga sant yàlla ci ñaan bi nga waajalal sa bés bi ci ñaan bi nga xamante ne noon nga sante yàlla ba tax na boroom xam-xam su mag di xasanul basri rahimahullah mu daldi la jox benn nasiha conseil laayee biir bu toll ni mu ne la ibnu aadam yow doomu aadama bi innama ay ayyamun xamal ne bés yay jaar di jàll ci sa dund bi moo fi tax nekk ba tax na danga nga war a xam ne kullama zahaba yawmun bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baaduka am na lu deñ ci sa dund bi loolu dañ ci sa dund bi moo tax bu demee dootul ñëw bés boobu bu jàllee dootul ñëw ba tax na danga war a bàyyi sa xel bési àddina yay jaar di jàll di dem nga xamante ne bés yooyu dootuñu ñëw ilal abad ba tax na yow mi nekk ci société bi ngay dund na nga garder say cër yi na nga say cër yàlla yàlla dénk nga di ko jëfandikoo fii kulli maa yuhibbuhu llahu wa yarda na nga jël sa cër yooyu di ko jëfandikoo ci lépp la nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala bëgg na ko mu doon béréb yamu sopp nga baña a boyal say cër di ci def lala soob di ci wax lala neex lu mel ni làmmiñ lu mel ni loxo yay bind message lu mel ni suñu mbokk journaliste yi ngay bind lu la neex ngay bind luy tas pénc ngay xaawi suturay doomu aadama say cër yooyu war nga ko war a mën a wattu ba doo def loolu ci sa cër yooyu sa làmmiñ bi ngay waxee tamit nga la way nanka wattu bañ a wili pande bañ a tas yaakaar bañ a xaawi sutura ki nga xamante ne xam amul fu muy waxee amul fu muy jooytoo la koy naqari ah kon yow mi ko yàlla yembalal yow mi ko yàlla yënkeewal na nga dawal yërmande na nga dawal compréhension nga bañ a wili pande sekkere nit ñi ci waxukaay bala yàlla dénk rawatina suñu jamono ji nga xamante ne jumtuwaay yu xarala yi ni ñu takarnaasee ñii di ko jëfandikoo tas ñii di ko jëfandikoo ci ay xeetu diffamation ñii di ko jëfandikoo ay xeetu tuumalaate ñii di ko jëfandikoo ay xeetu xaawi suturay nit ñi kon yow danga nga war a sore si ñooñu waroo bokk si ñooñu di di jëfandikoo jumtuwaayu xarala yi ngir yàq yow danga nga war a bokk si ñi nga xamante ne dañuy jëfandikoo jumtuwaayu xarala yi ngir defar da war a bokk ci ñiy jëfandikoo jumtuwaayu xarala yi ngir ñaw defar lañu yàq ràbbaloo ñu war a tongoo wala ñu war a juunoo nga ràbbaloo leen ak sa moyen bi nga xamante ne moom mooy jumtuwaayu xarala yi bu ko nit ñi di jëfandikoo luy yàq ngalla yow nanga ko jëfandikoo ci lay defar loolu mooy la nga xamante ne noonu la jullit bi war a mën a dundee ci société ba muy dund ak jumtuwaayu xarala yi yañu yàlla suñu borom tabaaraka wa taala baaxee ci mujjantelu jamono ji te mooy internet ba tax na noonu lañu ñu bëgg fas xuusa xuusandek yéen ci suñu téere bu mag bi di alquraanul karim ñu géem xuusu géeju alquraan géem a napp aaya ba nga xamante ne moom lañ fas yi yéene ànd ci tefes bi su ko defee ñu ànd ki xool aaya boobu lan lañu ci yàlla di baaxee subhaanahu wa ta'ala te mu jaarale ko ci suñu yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bu ñu demee xool ci alqur'an dinañ fekk te suuratul baqara fu yàlla tabaraka wa ta'ala di yankeewal suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay jikko yu noobul yi nga xamante ni borom bi dakaa dëxalanteg ay xeet yi fi jiitu woon xeetu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeetu yooyu ñooy xeet yifi nekkoon mooy xeetu yonentu yàlla muusa walla xeetu yonentu yàlla yaqub alayhim assalaam ndax ñooñu ñooy waa banu israil waa banu israil seen xissa xaw naa takku lool ci alquraanul karim la waral ngir yàlla dakaa baaxee suñ yonent bi sallallahu alayhi wa ngir xeetu yonent yàlla muhammad war see jëlee bind war see war a mën a jëlee xam-xam war mën a tënk seen doxalin ci dundinu waa banu israil ndax ñoom yàgg nañoo jëflanteeg seeni yonent yi jëflante yoo xamante ne xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom it war nañ see war a mën a jël ëlluwa waaye war nañ see war a mën a jëlee bind boo xamante ne buñ ci tënkoo seeni bopp amaana dinañu am la nga xamante ne mooy la lañ di njëriñ bu dee xeetu digle yi la ñu tënk fa seen bopp ñu juboo ak tëralinu borom bi subhaanahu wa bu dee xeetu tere la ñu tënk seen bopp sori ci tere yooyu su ko defee ñu war a mën a tënk seen bopp ak lu méngoog tëralinu borom bi subhaanahu wa taala ba tax na bu ñu demee xool aaya bi borom bi subhaanahu wa taala mu ngi yenkeewal suñu yonent bi ci téere bu mag bi di suñu alquraanul karim mu ne ko wa id axasna mithaqa bani israil alaa taabudu illa allah wa bilwalidaini ixsaanan wa dil qurba walyataama walmasaakin wa quulu linnaasi xusnan wa aqimu lsolata wa aatu zakata summa tawallaytum illaa qalilan minkum wa antum muridun suratul baqara mbokk yi aaya bañ doon yëkkati ni léegi lii daf di xeetu pat xeetu dëxalante ba nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko dëxalante waa banu israil dëxalante boobu pat boobu accord boobu la suñu borom tabaraka wa daldi di yenkeewal yonent bi ci suñu téere bu mag bi ngir xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñu war a tënk seen bopp ci la nga xamante ne loolu la yàlla di xalanteeg waa banu israil ngir xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu war a mën tënk seen bopp ci accord ci li nga xamante ne moom la yàlla akkooranteel ak waa banu Israil ba tax na yonentu bi fekkeewul accord boobu ba ko yàlla doon sini ak waa banu Israil ci waxin yonentu bi fekkewul xamul ba yàlla doon dëxalanteeg waa banu Israil pacte accord bi nga xamante ne moom la borom bi tabaraka wa taala junj ci aaya bi mu mu doon ay accords yoo xamante ne war nañ ci war a mën a noter ñaar ba ñett ba ñeent waaw ba juróom sax war nañ ko si war a mën a noter su ko defee aaya bi dina ko andi ñoom ñëpp ci kanam bi iznillahi subhanahu wa taala mbokk yi accord bi nga xamante ne moom la buur bi subhanahu wa taala dexalante ko waa banu israil bokk na ci bu ci jiitu mooy ñu bañ a yàlla dara ñu wéetal ko ci moomelam ak ci nguuram te loolu mooy ñu wéetal yàlla ci nguuram ñu bañ koo bokkaale dara ñaareel bi mooy ñu rafetal jëmale ko ci wayjur yi moo xam wayjur bu góor la moo xam wayjur bu jigéen la ñu rafetal jëmmale ko ci wayjur yi ñetteel bi loolu mooy ñu am xolu yërmande am xolu ñeewent jëmale ko ci njobootu yàlla ba tudd al yatim bi mooy ñu am xolu yërmande xolu ñeewent xolu compréhension xolu dimbali xettali jëmale ko ci njobootu yàlla bi ñu naan miskin a juróomeel bi loolu mooy ñu wax ci nit ñi lu rafet nga déggee ci ne ñu bañ a wax ci nit ñi lu ñaaw juróom benneel bi loolu mooy ñu taxawal julli waaw ca waxtu ya ak fañ koy joxe ak anam yu ci aju ñeenteel bi walla juróom benneel bi loolu mooy la nga xamante ne mooy ñu joxe azak léegi nag dafa am ñu respecter accord yi dafa am ñu respecter la nga xamante ne mooy pacte bi am na ñoo xamante ne respecté nañu déxalante ba yàlla suñu borom déxalante ko waa banu Israil bem des kuréel yu néew te ñooñu tamit bañ a la yàlla dëxalantik ñoom te ñu doon kuréel yu néew keroog ñoom ñépp dañoo d'accordoon ci li leen yàlla sant waaye am kuréel yu néew daldi jàllarbeku daldi dummuyu pacte boobu yàlla ne yonentu bi ne yow yàq say xeet bu leen mel ni waa banu Israël lañu jëflanteek man ci accord ba ma signanteeg ñoom wala ci pact bi ma signanteeg ñoom su ko defee ñu ne man lañ doon nax or ko fekk na seen bopp lañ doon nax ndax mbugal ba ma leen di mbugal keroog bés pénc laa lay moytandikuloo yow yonent bi ak say xeet kon xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci aaja bi ñun la yàlla buur bi tabaraka wa taala di waxal kon nañ leen bokk àndandoor déglu la aaya bi di firi ca suñu kémtalay kattan ci waxtu bu néew bu ñu cërale danañu ko yàlla yombalal amin ya rabbal alamin mbokk yi buur bi tabaraka wa taala daf ne bi ne yow sama ndaw ah am na xeet yàlla fi jiitu woon ñu nekkoon waa banu israil moo tax yàlla ne ko wa is iz axasna fàttalekul keroog fàttalekul bés fàttalekul jamono fàttalekul est-ce que xam nga ne keroog ba ñu jëloon keroog ba ñu doon signé keroog ba ñu doon jël dig bi nga xamante ne déxalante naa ko waa banu israil moo tax mu ne ko wa is fàttalekul axas na ba ñu nangulee misaaqa dëxalante boo xamante ne am naa ko mag waa banu israil waa banu israil dëxalante bi mooy lan accord bi moo doon lan mooy ne allah taabudu bu leen jaamu allah taabudu bu jaamu dara dara dara illallah lu dul yàlla da ngeen jaamu yàlla dong ngeen bañ a jaamu xërëm yi ngeen bañ a jaamu la nga xamante ne lu yàlla la moo tax mu ne ko pat bi lañ fa njëkk si signé accord bi la dox sama diggante ñoom mooy dama leen ne allah taabudu bu leen jaamu dara bu leen jaamu lenn illallah lu dut yàlla na ngeen jaamu yàlla wittal ko na ngeen jaamu yàlla kennal ko ngeen bañ ka kaa bokkaaleeg dara loolu mooy ñaareel boobu mooy njëlbeenu pacte bi ñaareel bi yàlla borom bi tabaraka wa taala ne banu israil ñaareelu accord bi mooy wa bil waalidayni ci seen ñaari wayjur yi ixsaanan na leen rafetalal seeni nekkin na ngeen rafetal dimbali ko ci seeni ñaari wayjur yi ñetteel bi mooy wa zil qurba na ngeen rafetal dimbali ko ci mbokk bu jege bi wa zil qurba na rafetal jëmmale ko ci géño bi wa zil qurba na ngeen rafetal jëmmale ko ci meen bi wa zil qurba na ngeen rafetal jëmmale ko ci képp ku leen yàlla boole ngeen doon mbokk moo xam ci géño la moo xam ci meen la bi maanaam moo xam ci doomu bàyyi la moo xam doomu ndey la na ngeen rafetal jëmmale ko si ñooñee bu kenn ñaawal diggante bi ci wax walla ci jëf wa zil qurba na ngeen rafetal jëmale ko ci mbokk bu jege bi na ngeen rafetal bi léegi wala yataama jëmale ko njobootu yàlla ba tudd yetim di jirim wala yataama na ngeen rafetal jëmale ko ci jirim bi nga xamante ni yàlla at ci moom mu doon jirim waaye na ngeen rafetal bi léegi wal masaakiin ak njabootu yàlla bi nga xamante ne mooy miskiin wal masaakin na ngeen rafetal jëmale ko ci miskiin yi waaye nag yàlla ne waquulu ba léegi na ngeen nangoo jikkoo jikko bu noowul wii muy ñoo waaj a wax si nii waquulu na ngeen wax ak seen gémmiñ waquulu ngallawaay na seen làmmiñ yi di tudd linnaasi si nit ñi xusnan lépp lu rafet nga déggee ci aaya bi kon wax ci deru nit lu ñaaw xaju fi wax ci deru nit lu ñagas bokk fi bu ko meloo bu ko jikkoo ndax yàlla moo ne la wa wax linnaasi ci lu rafet wa quulu na ngeen wax linnaasi ci nit ñi xusnan luy jëkkal diggante bi luy rataxal diggante bi luy rafetal diggante bi kenn bu mu wax ci diggante ak moroomu nitam lu koy ñagasal lu koy ñaawal wa quulu na ngeen wax linnaasi ci nit ñi xusnan lu rafet wa aqiimu salaata te ngeen taxawal julli di ko defee ci palaas yak waxtu ya boo déggee nodd ñu naan hayya ala salaah hayya ala falaah na bàyyi lépp li ngay def dem wuyu comme lañ doon def ci ginnaaw ci waxtu su néew ci ginnaaw julli fajar bañ doon def gannaaw bu noddukat wi ne assalaatu xayrum mi na naw yow mi ko dégg danga war a bàyyi nelaw boobu ngay nelaw nga wuyu la nga xamante ne mooy woote bi moo tax borom bi ne wa aqiimu salaata na ngeen taxawal julli ngeen di ko jooxee ci béréb ba ak waxtu ya su ko defee waa aatu zakata ngeen doon kiy joxe azak ngir dàq pauvreté ci seeni société société bi doon société solidarité kenn ku nekk di taxawee moromam ca lamu tële kenn ku nekk di taxawee moromam ca lam ka nii lañuy ñuy génnee azak lii moo war islaam nee na nañu génne azak jëlee ko ci ñi nga xamante ne dañuy am koom-koom jëmmale ko ci ñi nga xamante ne seeni loxo jotul seen ginnaaw wa aatu zakata ngeen joxe azaka alquran nag bokk na ci slogan ba yàlla di faral di indi aaya wa aqimu salaata na ngeen taxawal julli ci wet bi mu teg si ne wa aatu zakata na ngeen joxe azaka rarement jafe na nga gis aaya ba yàlla tudd wa aqimu salaata te tuddut wa aatu zakaata waxuñu ne nekkul ci biir téere bi waaye bariwul lu ñu constaté waaw lu ñu jot a seet lu ko xel mooy fa yàlla ne na ngeen taxawal julli ci wet bi wax na fa na ngeen joxe azaka moo tax aaya bi yàlla ne wa aqimu salaata na ngeen taxawal julli ci mbooloo bañ koy defee ci jàkka ya gannaaw bi ngeen déggee noddu bi waaye nag wa aatu zakaata na ngeen joxe azaka alal yaleen yàlla dénk yàlla ne accord bii ma accordante ko waa banu israil dexalante ba ma dexalante wak banu israil mooy lii nañu jaamu yàlla bañ koo bokkaaleeg dara nañu rafetal jëmale ko seen ñaari wéyjur yi nañu sedd la nga xamante ne mooy mbokk bu jege bi ñu jëmale rafetal bi ci ñoom waaye nañu rafetal jëmale ko ci jirim nañu rafetal jëmale ko ci miskin te nañu wax ci nit ñi lu rafet boole ko ñuy taxawal julli ñuy génne azak accord bi yàlla daka accordante ko waa banu israil yàlla ne ginnaaw ci loolu summa tawallaytum ñoom ñëpp ñu babbeeku booloo dumóoyu accord ba yàlla akorante ñoom summa tawallaytum gannaaw ñu dummuyu dexalante ba ñu dexalante yàlla ci aaya bi yàlla ne illaa qalilan minkum lu du lu néew ci ñoom te tamit a ah, li gën a bëri mooy wa antum ñoom seen mbooloo boobu de muridun dañoo dummuyu accord bi moo ne accord bi ana lu ci ñaaw accord bi ana lu si jekkadi accord bi ana la si nit ku normal di bañ a jël wax ma nit ku normalul de déedéet kooku taxu ñooy wax ku normal ku am xel ku ànd ak sagoom accord bi ana li fi nekk la muy ignorer man de gisuma ko lii yëpp a baax lii yëpp a rafet lii yëpp a neex a jëflante kon bu yàlla ne teguma doomu aadama lu dut bakkanam lu mu xajoo lii bakkanu doomu aadama bi xajoo na ko loolooy dégg bakkanu doomu aadama xajoo na aaya bi lépp lu fi nekk juróom benn accord ba yàlla accorante ak waa banu israil te mu jox ko yonentu bi sallallahu alayhi ngir xeetu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ñu inculque ko seeni dund ñu taxawee ko dama ne accord bi lépp lu ci aaya bi bakkanu doomu aadama bi xajoo na ko accepté na ko war na kaa war a mën a jëfe amul dara lu fi difficile wéetal yàlla ci jaamu ba nga koy jaamu da fiix gis nga képp ku ñam wéetal yàlla sore bokkaale da fiix kenn dootu la yen dara luy doon ay sobe kenn dootu la yen dara lu nga xamante ne day ànd ak ay ay ay lu kenn xamul waaw bu ñu wéetal yàlla nag dangay am ay asbaab waaye asbaab yooyu day fekk yonent bi jàngale ko lu mel ni del jàng ayatul kursi lu mel ni del jàng falaqi ak naasi lu mel ni audu bi kalimatillahi tammati min charri ma xalaq xëytu yooyu chariatul islam dakaa yoonal pour jullit bi di ko jëfandikoo ça n'a rien ak bokkaale yàlla waaw kañ ndax boobu day fekk ngay dellu ci yàlla di làqu fa yàlla wéetal yàlla ba pare dellu fa moom ngir sàkku kaaraange nii la ñuy déggee aaya moo ne rafetal jëmmaliku ci say ñaari wuy jur ña doon sabab nga gani si àddina ngay rafetal jëmmaliku si ñoom boo ci tolloo say doom def comme ni nga doon def say waar ñaari wuy jur loolu ana lu fi ñaaw rafetal jëmale ko ci mbokk bu jege bi su ko defee ñu bëgg nga bëgg leen non non doo tudd installé seen diggante li jekkul ah kay rafetal jëmale ko ci jirim koo xamante ne yàlla dafa dogal wuy juróom génn àddina nga di ko taxawee ci biir ak ci biti loolu jekkul ah kañ surtout ñu ngi waaj a jublu ci tabaski bi nga xamante ne rafetal jëmale ko ci ñaari njabootu yàlla yi moo ci gën a am solo nag waaw. rafetal jëmale ko ci mbokk bu jege bi moo xam ñi nga bokkal bàyyi la moo xam ñi nga bokkal ndey la moo xam ñi nga bokkal ndey ak baay la rafetal jëmale ko si ñooñu amul dara li ko gën noobul si jikko waaye nag rafetal jëmale ko si jirim ki yàlla jël waajuram ci kaw suuf nga taxawee ko ci biir ak ci bit amul benn jikko bu ko gën noobul ci dundu doomu aadama bi waaye ba léegi rafetal jëmale ko ci ki nga xamante ne mooy njobootu yàlla bi ngi naan miskin amul benn jikko bu ko gën a noobul ci kaw suuf si waaye lii dëj dëpp bi mooy la xew suñu réew mi ak la nit ñi nekkee ci jamono ji waqulu li naasi xusnan la yàlla wax na ngeen wax ci nit ñi lu rafet waaye nit ñi léegi moom dañuy renverser aaya bi ñoom lu bon lu ñaaw lu ñagas rek la ñuy teg ci deru nit ñi kañ la lii di dakk kañ la lii di jeex ñu ne nga wax ci nit ñi lu baax ngay wax ci nit ñi lu ñaaw noonoo beeg bañante beeg tongoo bi di installé wu parce que yow miñ la digal ne na nga wax ci nit ñi lu baax yaa lank ne doo wax ci nit ñi lu baax moo tax lu ñu gis penc bi di doxee nii rek lay demee yàlla bu la digalee nga lànk ah da nga topp leneen lu dul ndigle yàlla te loolu fu mu lay jëmee ñax du fa sax su ko defee ñu déggee nii aaya bi yal nañu yàlla yërëm wallahi alazim su ko defee borom bi ne bokk na ci pat ci accord bu ma siñanteeg waa banu israil mooy wa aqimu salaata na ngeen taxawal julli bi nga xamante ne mooy doon audience bi ngeen di am man yàlla ak sama jaami ndax jaam bi jullit bi day am audience digganteem ak boromam ci bés bi juróomi yoon mooy julli bi borom bi ne ñeenteelu ponk islaam mooy wa ita is zaka nee na na ngeen joxe azaka ndax ponku juróom ya islaam taxaw bokk na si wa ita is zaka waaw nanga joxe azaka na nga joxe sa sa zakay alal zakay alal moo tax yàlla ne képp kuy taxawal julli da nga war a joxe azakay alal yàlla ne ginnaaw si waa banu israil dañoo dumooyu moo tax mu ne summa tawallaytum illa qalilun minkum wa antum muridun lu bëri si ñoom waa banu Israil dañoo dumooyu la nga xamante ne mooy pat bi du du lu néew si ñoom mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a yëkkati jotaay bi nar a jébbal béréb bi ñay joxe xibaar ci nasaraan ñu ngi ànd ak suñu technicien bu mag di jaawo jàlloo mi ngi doon jàppale ci wàllum xarala gi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 wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ahi wa barakaatuhu ahi wa barakaatuhu ahi wa barakaatuhu